di jot hudo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da ngay def fi ñu wax ne bo noppé ñi teg ci te sallallahu alayhi wa sallam mi ngi toll ci juróom fukki atam kon khadija manes na ni xewal gu yàlla xéewale woon yonente bi la ndax des na lu mat am na ak mom lu mat ñaar fukki at yo xamni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 Zeyd ibnu Xaarisa daan ko di fekk doj yi ci jëmmi boppam di dox di dox diggante yonante bi ak doj yi di yuuxu ba xaañ nañ ko ay xaañ-xaañ yu bari ci ci bopp ci boppam moom Zeyd ibnu Xaarisa noonu lañ def di ko topp ba mu àgg ci benn làkk boo xam ni làkk ab tool la boo xam ni Utba ak Shayba ñaari doomi Rabia ñoo moomoon làkk boobu waaye dox nañ topp nañ ko bu mat ñetti mil seen digganteem ak Taayif ba mu duggee foofee nag léegi toog fa di ñu doon ñu doon wëlbatiku dellu dellu mu daal di dem ci genn garabu raisin mu ngente bi daal di toog ci ker ga wéeru ci miir bi ba mu demee ba wéeru ci miir ba la ñaan ñaanam gu siiw googi ne allahumma ilayka asku dufa quwati yow yàlla yow di laay jàmbat sama néew kàttan wa qillata xiilati ak néewuk sama pexe waxawaani ala Nasi ak manqué te gëma nit ñi manqué doy di gëma doy di ya de yow laa koy jàmbat ya arhamar rahimin anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ne ko yow de yaay borom ñi ñu doya dal te yaay sama borom ila man takilu ni ana ci koo may ila baidin yatahajjamuni ndax dang may wéer ci kuma sori muy jóg pour song si mag doole am ila aduwin malaktahu amri wala boog nga fab sama mbir moom loo ko sama noonu in lam yakun lika alayya gadabun fala ubaali waaye di lu mën a xew de boo ma merewul rek duma ko faale walakin aafiyataka hiya awsaxu lii waaye sa jàmm di moo gën a yaatu ci man aauzu bi nuuri wajhika allazi ashraqat lahu dhulumat wa saluha alayhi amru dunia wal axira min an tun tan tunzila bi gadabak ni ko maa ngi muslu ci sa leerug jëmm sa leerug jëmm ji nga xam ni ci la lënam yëpp leere te ci la mbirum àdduna ak alaaxira yéwee ne maa ngi muslu ci sa leeru jëmm jooju ngay wàccee ci man sa mer aw yaxulla ale soxtuk wala sa sànja di wàcc ci sama kaw lakkal utba xata tarda wala xawla wala quwata illa bik ñaan bi yonte bi la ko ñaan kon ñu taxaw foofu yi ci yonente bi mu jógee taif mm, bu benee ne jël gaaral gi yonent bi doon gaaral giir yi ñëwaat ma Makka benn dentine yi ñëw ak giir yi ñëw ñu leen doon gaarale islaam ak fañ mujj euh, loolu kon ci waxtaan yi di ñëw danañ ko def incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngay mën di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDP religion da bés fii ñu wax sabone boo noppee ñu ci